nuyoo bu njëkk bi mooy sama nuyoo ak nuyoo Père Birahim Ndiaye bi ma ko waxee ci yow laa jëm si yóbbante ma noonu nuyoo te yóbbante moom euh, jox borom rek a ci war maa lay nuyu bu baax di la siyaar. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku si nekk turam ak santam. Père Birahim nag moom dama koy ñaanal gudd fan ak wér ndax euh, sama premier komba laa bëre du Bari. kii euh, Mar mm-hmm. mu toog ak ñi mu toogal ni leen xale bii de xale bu mën a bëre la waaye fu ma ko mënti gis xamuma ko nag fu ma ko mënti gis naa ko may xaalis mm-hmm. léegi nag benn paa bu mu toogal ni ki kii doomu Souleymane Diaw la daaw ma dem CNG di renouveler sama licence mm-hmm. renouveler bay génn dajeek moom ma ne ko pap na nga def yaa ngi si jàmm mu ne ma maa ngi ci jàmm yow la kan ma ne mbay jaw doomu Souleymane jaw mu téye sama loxo génne kalpeem génne xaalis ni ma boo si fekkoon xaalis bu ëpp lii ma jox la ko ndax maa toog estaat nga bëri bëri bu ma neex ma dig la lii. kon maa ngi koy jaajëfal di ñaanal gudd fan ak wér. ak suñu moroomu pàpp yëpp. ñi nga xam ne dañoo xaw a jagadi yàlla fëgg seen bopp yëkkati leen ki si ne dellu si njabootam. ñi nga xam ni ñoom yàlla jël na leen yàlla yërëm leen te xare leen àjjana. Hmm.